fexeel ba def ko xaalisan li wajhillaahi ndax su boobaa ci lay am njëriñ bu boobaa boo defee ñeenti rakka sax yàlla fay la ci loo xam ne bu la ko wanoon nga fanane julli waye bo fanane won julli ngir yàlla daf laa alquran nga man ko diko jàng mu neex ngir ñi lay deglu rek do ci am dara khabaan an lay nek ngalaw rek la bu fekke ne da ngaa bëgg ku gis ku génn gis la yaa ngi rukkoo ko si gi ñu ne waa ji de moom day julli rek bu fay boobaa loolu rek nga ciy am kon nañ fexe ba li ñuy def ñu defaraat yéene bu baax te yàlla tax ndax yàlla laa yudiu ajral muhsinin nee na man yàlla du ma sànq mukk jëfi aji rafetal jëmee ci borom bi tubaab te it wa ahsin kama ahsanallahu ilayk fexeel ba na nga rafetal lépp looy def surtout sa digganteeg sa borom bu ñu la naan dafa rafetal sa digganteeg sa sa morom rawatina kay fa nag sa borom mi la bind di la dundal lépp loo am moo la ko jox lépp loo yaakaar si moom la subhaanahu wa taala moo lay dundal moo lay rey moo la nar a dekkal ëllëg yowmal xiyaam moo la nar a yërëm dugal la aljana kon rafetal bu ne jaadu na waaye digganteeg sa borom rawatina nag boo jógee di déyaaleeg sa borom ndax julli moment bu am solo la motax borom téere ne li salatu nurun azim neena julli leer gu mag guy jigi ko sun borom mu ngi waaye la yanaaluha illa alxaashiun waaye du ko jot mukk mom leer gog lu moy ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy toroxlu seen bi du teewlu seen borom tabaraka wa taala waaye rak yi bari na allahu akbar assalamu alaykum te sa xol bi bi ngay julli mu nga feneen dëgg dëgg fa yàlla taxul mu am solo kon bu soo bëggee li ngay jaamu ci fukki fan yi sunu borom subhanahu wa taala defaral lako ko dencal la fa yàq yegul to mom ci yàlla mu li la dig ci fukki fan yi yàlla defal au delà yow de tes espérances ndax wallahu yud'afu liman yasha Allah wax man yàlla damay fule ni ma neex noonu lay fule kon buñ leene ko def ben rakka nafila ci weeru koor surtout ci fukki fan yu mujj yii benn rakka bi suñu borom mën na ko ful ba fay la ko yoolab téeméeri rakka benn rakka waaye yàlla ne walaahu yudaafi ñi yashaa man yàlla nu ma neex lay fule ndax moom kenn du ko contrôler su ko defee ñu ciy jàngal Alxuraan di ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ci def ay istixfaar ndax kat dañoo wax ne fukki fan yi sunu borom daf ñuy goreel ci safara mbokk yi safara lu jar a daw la alquran moo ñu ko wax ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quuduha wal hijara ila akhir al aya safara yal nuñ ko yàlla nëbb ma tax yonent bi alei salatu salaam daan wax ne allahuma ajirna min annaar ak martaba bi mu am ci yàlla yàlla xamal ko ne ko yow yaa tax ma bind aljana ak ñu topp ñu la topp ci sa diine خيتو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيو نك دوغ اجانا يالا نينكو ولا سوف يعطيك فطر ربك فطردا من يالا دينا لا جوخ بس بنت بيغا گرم يوننتي بي تي مباخم نكو اذا لا ارضى وواحد من امتي يدخل النار نينكو كوندي من يالا دوما گرم فك كين تي سما خيت نات ناي دم سفر كون موم بولني فكي فاني عتق من النار ناني گور گورلو بو باخ ndax alquran kat mo ñu na ngeen fegu ci safara na ngeen daw safara waye na ngeen nak yobale seen jabar wa ahlikum nar yonent bi alei salaam ne ittaqi naar walaw bi siqi tamr nee na ngeen daw safara na ngeen ragal safara dont kon gën walu tàndar ma nga am nga saraxe ko ngir yàlla musul la ci safara moo tax moom yonent bi alei salatu wasalaam wax ne hadis bo xamne abu hurayra radiallahu taala anu wax mu ne sallallahu alayhi wasallam wa an abi hurayra radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا خام من الليل فصلى وأيقظ امرأة فإن أبت ندح في وجهها الماء صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة خامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى ندحت في وجهه الماء رواه أبو داود او كما قال صلى الله عليه وسلم yonent عليه الصلاه والسلام بوكي دا فا yi ndax sunu yaay ay Aïcha dafa waxoon ne fukki fan yi da koy dundal non seulement waaye day yee waa këram da leen di yee ndax alxuraan li mu wax qu anfusakum wa ahlikum naara moom nag da daan yee waa këram moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kenn ci yéen bu jogoon guddi di julli julli ba ci kanam mu gestu gis soxna saa ngi tëdd di nelaw mu ñëw di ko yee di ko fëgg fëggal di ko yee neena soxna si di bagn bañ lu mu jël ndox diko wiss ci kanam gi ngir mu yew neena def gi mi def loolu rahimallahu yàlla da ko ci yeureum yàlla daf ci bég subhanahu wa taala gis nga kazalika bu ko soxna si defoon it nga gis fami ni mu amé solo ci l'islam baye ci fani bu ken dem baye sa waa kër bu kenn dem bàyyi sa ñooñ te ñu ñaan ci bu baax yàlla dimbali ñu ci feebar bii mbas mi yàlla jëlee ko fi waaye ñu ñaanalaale suñuy bokk ñaanal way dawli yàlla baal leen ñaanal gone yi yàlla barkeel leen teg teg leen ci siraatul mustaqim ndax ñaan rek moo mën a dimbali nit waaw yonent bi moo ne addu'a muqul ibada yuur ñi mu mel ci doomu aadama nga xam ne boo mosee mu saf yuur la buñ la kaataa mu saf yuur la tabaar tabaarkalla sukara kaane boo ko xam ne lépp suñu borom mu ngi ko programmé ci yuur ñi mu mel ci doomu aadama nag noonu la yonent bi noonu nee na jaamu yàlla ñaan noonu la mel ci jaamu yàlla kon nag tabaarkallaahu ñu jéem a wàccee foofu kàddu yi jox la dig daje ba beneen yoon ñu gën a continuer ci diggante ñaari sut waay ñaari waay dencante ak waa kër gi ak yonent bi alayhi salaatu salaam nu mu meloon ak waa këram incha allahu rabbi boo ñu toppee ba fan yi di ñëw incha allahu danañ continuer yow ci sa fàttali bés bi kon loolu la woon di continuer rek di wax ngeen continuer di abonné ci sunu chaîne YouTube bi di Aquabat TV di leen sant bu baax di ñaanal sunu bokku technicien yàlla fayal leen boppam may leen fan yu gudd ànd ak wér gu li ñu bëgg lépp yàllaa ko xam yàllaa ko am ñoom nag bëgg lañ am waaye yàllaa xam yàllaa mën yal na defal leen koy seen jot defal ñu ko defal ko bépp jullit wa axiru dawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي سيدان تي أكوا با تي في سنة في لبس بيدي خمنا موي نيار فكي لي قد أك جروم جروم نيتي ركا لا جروم نيتي ركا ركا عبو نيغا جانغ بن فاتحة أك نينتي قل هو الله أحد بن فاتحة أك نين فكي قل هو الله أحد أك نين فكي قل هو الله أحد ñeenti yoon quatre fois akay benn yoon fatiha ak rakka bu ne fatiha benn yoon nga teg ci qul huwallahu ahadun ñeenti yoon muy quatre fois juróom-ñetti rakka la incha allah su ko defee naafili gi di ñaar fukkeelu guddi ak juróom sayyiduna ali karramallahu wajhu wa radiya anhu wax na ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku def julli googu ولا غدي غوغو كو سي داف تراويح يالله سبحانه وتعالى دينا لا بال سي بكار ييب بو داجيك موم مو تيرال الجنه ان شاء الله يالنا نيو كيالله دافال بحرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله